bisu samedi la tombeel waaw bisu samedi la tombeel ci sëñ Bamba rek laa gisee faa koo xam ni demagul ci voyage bi mu war a voyage sant ci yàlla mu ngi mel ni footballeur bu ñu ni classé nañu ba pare nga zibbale ni damay gañe te xam naa ne damay gañe te wóor na ma ni damay gañe te xam naa ni 5-0 laay gañe loolu la sëñ Bamba doxal sëñ Bamba ni maa ngi génn di dem samedi la tombeel mu ni xarajtu génn naa yow ma sabti bisu samedi ñu ni ko lan la tombel mu ni saamina asara bu ma ko fàttewul fukki fan ak juróom-ñett la tombel ñu ni ko génn bi lu ko waral mu ni li xidmatil muxtaari ngir liggéey li yonent yàlla Muhammad ndax jàpp nga weer yi mu ni fii sëhri safar ci weeru safar la tombel tukkeem boobu muy tukki julli fajar la dugaatul néegam bi muy egg si foofu nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, Saint-Louis di Ndar xoolal kër sëtu yonent bi la dal kër Ahmed Khouraychi sëñ Bamba nee na bi may départ di dem maa ngi nii jàkkaarloog ashabu rasul maa ngi jàkkaarloog ahlu badar waaw lu ma jaaxal lu tax tubaab bi gisuñu ko tukkeem bi mu dem juróom-ñaari at yeeg juróom-ñaari fan yeeg juróom-ñaari euh, weer yi bi mu ñibbisee lenn la indi sëriñ te mooy yàlla ijaal yàlla nang ma defal rujuwaay sama dellu ilaa xaw mi ci sama ay nit naa muy suñu ak texe maa ngi lay ñaan yow yàlla bu fekkente ni tukki bi am naa ci ngërëm lu may làq maa lay ñaan bul ma ko jox man képp mbaa nga jox ko waa Mbàkke waa Mbusoobe maa ngi lay ñaan réew ma ma bàyyi ko ku fan dara dem safara yàlla na nga sama tukki bi ijaal ma defal rujuu yi sama dellu ilaa xaw mi ci sama ay nit naa muy sunu ak texe wal taf fi naa yàlla nag ñu fegal ci barki tukki bi yow mal jamee xalqi ana bis ba ngay lakk yàlla nag ma rusee yàlla nag ma rusee sama tukki bi benn yoon mu sa wax ne dafa metti bu ma ko xalaatoon jaral na ma jihaat mooy alxames bi ñu may indee ndakaaru ma déparé ndar taxaw ba ndakaaru sëñ Bamba nee na alxames boobu dama ko woor faa bi nu may dugal ndakaaru dugal nañu ma ci néeg boo xamante ne foo tourné yaa ngi gis ràbb waaye nee bi ma dugalee sama tànkoo ndeyjoor dafa sar ba ma yëg ni sar na ma wax tànku ndeyjoor bi ni ko tànku càmmoñ bi sa nawle la waru may faj tànku ndeyjoor bi bàyyi la bu dee am na lu des bi abo nga barkeelu ci ci la dugalee tànku càmmoñ mu mu sar ba ba ba deret sotti nee na nag ci la ma yonent bi feeñoo nag ni ma lan laa la jaral ma ni ko dam mi sama deret wa ahli sama askan wa awlaadi ak sama ay doom fi daa la lahoo njote naa la ko na yow yonent bi abdan xadiman lahu muskaana li sanada loolu la ko yàlla teree la ba bu màggal jotee ñëpp bàyyi seen alal yeeg seen kër yeeg yëpp jëm Touba te mu waxoon yàlla nag ni ko maa ngi lay ñaan sama liggéey bi ku ci def benn yàlla na nga ko fay fukk waqat yàlla nag ma fajalal xawaa ijal la zina aajo yi ña nga xam ne daamu dañoo sax fii xidmati ci di ma liggéeyal wa hëblahum yàlla na nga leen may maaraamu lu nu bëgg koo koy cheikhul xadim daam balla ma ca ngay xanaa xamoon ni pas-pas moo ëpp lépp doole boo nattee ci masaalikul naan bi fi sëñ Muntaxa di ñëw di julli ñaari raaka yi aljuma jooju dafa tàng ba fa tàng yam mais yaa ngi gis nit ñi sol seen bàyyi laaj ñi sol ñetti abdu bu doon leneen nga gis nit ñi daw wuti kër yi wala ñu da wuti ker yi mbaa ñu wut ndoxu naan mais nit ñaa ngi ñàq di fomp bi oto bi daagoo ba dugg biir Masaalikul Jinaan da ngay xool nit ñi ñuy jooy seen yaram yi di gën a tàng ndox ma mu jaaxalu leen balaa nga koy xam 18 safar gën a jege si mën nañ ci xuus mu jaral leen ñu dem ziyaare ji daam caraw doom bu tedd ba ngir sagalee ko lislaam ndax li mu taxaw lislaam yow xanaa xamoo pas-pas faa moytul ma borom soxla gis nga jigéen ji sëy te bëgg jëkkëram ñu jox ko benn gàllaaj ni ko 3 heures du matin yóbbu ko ci almeri nga suul ko dootul xool ragal intérêt lay xool ba dugg ci almeri noonu màggal Tuubaa gi mel ndox mi tax bi déggu li ma la wax bu doon taw jour boobu dëkk bi bal la gaa ñi sol seen yére yi di jaa jëfe cheikhul xadim jaraw lakk maam cheikh ibrahima fall ba safar gi jeex buñ mënta togg ci biir ndox mi aj mbanay togg ko ci kaw <laughs> yow xanaa xamoo pas-pas waaw wu ma leen dara sëñ ba xam nga ki état sonal mooy kii xaar état bi corona jógee sëñ Muntaxa jël na un milliard may leen bu bu yeneen tarixa yi tabax sëñ Muntaxa jël alalam di fa def damay wax ni état am problème état ci boppam moo xamul fu muy jaar sëñ Muntaxa ndax bu doon budget yor na ko boobu ëpp ko ndax sëñ Bamba liggéey na lu ëpp loolu problème bi kay fa mu nekk man ñenn rek lay waxal saa su ne guddeeg bëccëg suba ngoon di leen ñaan njëkk ak teraanga muy sàcc yi ñu am àllarba mm-hmm. sàcc yi na nañu jël feet ci màggal gi <laughs> jël xoolal sàcc yi dama leen di ñaan ngeen jël feet ci màggal gi yéen ak sëfoor yi faa mm-hmm. mënuma gëm ni nga ni taalibe Cheikhul Xadim nga yaa ngi boo mari oto am ñu jëm Touba ngir mottali ji seen mébét seen diggante ki nu yaakaar yow nga bokk ci ñu ñu yaakaar nga daan demee Touba 2000 francs sëñ Ba. waxtu sëñ Touba war ngaa sàcc bi takk njëlu Cheikhul Khadim wala njëlu maam Cheikh Ibrahima Fall am sam boo bokkal benn yoon bu ngeen jëm war ngaa jomb di jël sa loxo di dugal ci poosam ba yóbbaale pas-pasam ba yoonu màggalam dootul neex ndax loolu àttan nga ko sàcc téléphone nit te numéro bi mu war a dal ña demal ñooñu numéro boobu la yor nga yàq dalam loolu ndax attan nga moo tax sàcc yi dama leen di ñaan rek jour boobu nañ ko def férié nag buñ foree joxe dama ñoom ñoom dama leen ñaan loolu sàcc yi ñu gore ñu dawal férié demee leen seen xel ngeen fair ci màggal gi seexul xadim gi lu ngeen sàcc delloo lu ngeen for jox borom ñaan yàlla ci barke seexul xadim gis nga bisu jaamu yàlla bu toll nu mu toll ci yiw boo defee bàkkaar noonu la bàkkaar bi toll autorité yi aw ma lu ma leen wax ndax ñoo xamante ne bu jaax lay seeti sëñ Muntaxa euh, nu mu tudd waay euh, waa euh, Touba ca kanam amul lu leen të Touba titre foncier Cheikhul Khadim la est-ce que taw yi mu taw yàlla nammalu ko ni ko li fi jotoon a xew ci wàllu politique la yàllay raxas dëkk bi balaa sa ngan ñëw mu raxasal ko ba ndax lu tilim lu ne koy raxas ñu raxasal ko dëkkam ba ba mu rafet balaa màggal Touba da ngay foog ni fii musta am ndox nga xam ni nga xam ni murid yi ñoo dogu ñoom ñaari lañu yor murid yi dañuy teg ndeyjoor xaalis bu bari dénk ko boroom Touba teg càmmoñ kuur yu bari dénk ko maam Cheikh Ibrahima Fall nga wax jekk ñu boole la ak Serigne Touba may la teraanga nga wax njëkk di ñu boole la ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñamal lay kuur mu jeex tàkk. waaw ma laaj la dara lu la Messi defal lu tax bu dugalee bi ngay daw di yuuxu lu tax boo rombee mooyam jënd ko boo ko mënee am ci tubaab boo xam ne du ngeen dajee yéen ñaar ba mu xoromal la doo jaamu yàlla ba def tawassul ci moom bu la tubaab boobu mën a jaral loolu sëriñ Bamba mii nga xam ni itteem yëpp yonent bi la yow Mouhamed Mbaye loo am ci àdduna yonent bee la ko gënal loo am yonent bee la ko jox yow mënoo bind ci yonent bi sa xam-xam yeegewul foofu waaye waaye waaye ngay tiijaan Alaaji Malik bind nga tourné yam ci Cheikhul Xadim mu way yonent bi raamal waraa yow doo bëgg sëñ te man sama maam moo njëkk a tuddee Serigne Touba doom ci suuf kaw suuf bi mu ko koy tuddee juróom-ñaari at la Cheikhul Khadim am sama maam boobu tey caatam mooy sunu xalifa ñoom Baye mu ngi fii ñu suul ci géréw moom moom la Serigne Touba njëkk am ci torondoo booba ku tedd ki juróom-ñaari at la am sama maam moo njëkk tuddee Seydil Hadji Malick doom man wax ci Serigne si nekkul damaa ñëw ba télé doo koy def ndax sunu ñaari gàmmu yëpp bu ma gàmmoo ba 3 heures du matin ci Seydil Hadji Malick damay wàcc ci Cheikhul Khadim di jàng téere yi kenn moomu ko ci marché bi lay jaay mag ñi kenn moomu leen ku baax yaru ñu jox la leenu nu am nettali la histoire démb mémoire kenn moomu ko ku góorgóorlu am loo ci kafte waaye daal xam naa ni bëgg naa ko sëñ Bàmba lenn rek laa ko bëggee mooy li mu ni irham jami al wara yaa hadiyan radaa mun yàlla yàlla na nga yàlla na nga yàlla na nga yàlla nga jéggal mbooleem ku luy mi xale yeeg yow miy gindi aradaa ko alko loolu laa ko bëggee njéggalam bu may xalaat histoire yi nga xam ne dem na ci géej gi ànd ak tubaab bi musta xool seen xar kanam yi bu Musaana nekkee ci biir géej gi ngelaw liy luy folate ndeysaan mu toog ci kaw gàngu naayam yi di bind rek di way yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg tubaab bi tiim ko gis ko mu sëgg rek gis nga wiiri wiiri juróom-ñaari at yeeg maa yombaak dëkk ya mu jaar bu koor jotee mu koor ko yàqalu ko ci imaanam dara kenn tegalu ko cin kenn tegalul cin ci wetam kenn waxu ko asalaamaaleykum waxul kenn wa aleykum ay dëkk yoo xamante ni culture dëkk yooyu ni mu mel climat yi ni mu mel nga sàmm sa ngor sàmm sa ngor sàmm sa ngor sàmm sa ngor ba dellu siwaat lenn rek moo ma neex bi mu egsee fii ci pooru ndakaaru bi xam nga kën la yónni tubaab bi ko doon sonal ni ko wàccal nga woon ma Cheikh Anta borom gaawaan ndeysaan génn ci biti ak ñaari loxoom ni ko wàcc naa wàcc la naa képp ku ma yaakaar kooku doo ko sopp boo ko soppul kan ngay sopp ah, lu baax fu mu nekk ñu baaxal ko fa indi waaye bu fa saxee kuy defara fa nekk man du ma waxee ci ngistal man damay wax luy déparé ci sama xol te yàlla seede na ni sopp naa ko sëñ Muntaxa mi damay wax ni damay wax wax joo xam ni bëgguma ko sax di tudd sama gémmiñ damay xaar bis jot rek ma def ko sëñ Muntaxa ñëpp a ko ameel njukkal sëñ taxaa xalifa bu fi mu sa jaar jàmbaar nga waaye gis nga ayam gi ni ko nit ñi bëgge bi ni ibbi masaalikul jinaan bi mu egse da nga gis nit ñi di jooy te doo xam faa lan la ñuy jooy nga xam ne alaa bi zikrillahi ma inal xulub di tudd tur yàlla day dalal xol waaye am na nit yàlla yoo xam ne borom mbég mi borom bi jaaw bu rafet bi borom muñ gu rafet gi borom yat wu sell bi borom borom borom borom yu dul jeex li mu réalisé yëpp laa la wax di réaliser ba réaliser tey université nga xam ne billaahi wàccoon ak maamam Cheikhul Khadim yow mal xiyaamee bi gisoon ak maamam mu ni ko loo def ci sama ginnaaw mu ni ko réew ma nga bàyyi woon bi ñu tum ranke amoon nga yére bu amul poos nax bañ a denc fexe woon naa ba tabaxal la fa nangam état ba fa woon fexe naa ba jox leen nangam sama jumaay maam Cheikh Seydil Hadji Malick ji def naa ci sama jumaay maam Ibrahima Niass ji def naa ci la ma warloog laayeen yi def naa ko mboolem ku ma dégg nga deele ci accident yóbbante naa fa ku dee ci làkk def naa ci yaw bu boobaa seexul xadim takkal ko garaat nag ni ko li ma bëggoon ci yoonu murit te mooy tuubaa li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati defal nga ma ko bàlla ma ca ngay ndeysaan xanaa di ñaan yàlla mu def ci réew mi jàmm def ci sutura mi jàmm damay ne politiciens yi ne ñëpp noppalu faa li ma lay wax ko bàyyi xel politicien bu nekk boo bëggee xam noo toll ci réew mi boo defee émission ba pare demal nga xooli commentaire ya loo fa gis rek xamal ni yow noonu la nit ñi mel ci yow da ngay gis xoolal politicien boo xamante ni commentaire un ba du dégg mukk positif ay négatif rek lay dégg kooku boo dee dégg loolu looy wuti doo toog koo gis ñu apprécier ko ñi bañ xamal ni am na ñu bëgg amuñu bañ jéemal dugg mais koo gis ñëpp wax safaan ci yow bàyyil koo gis ñëpp wax ci yow lu baax demal dugg parce que nit ñi balaa ñu lay voter ci commentaire yi la ñuy njëkkee ak yow kon maa ngi lancé politiciens yi message ku ci defati émission ba noppi demal nga xool say commentaire boo bëggee xam foo tollu ci réew mi yàlla na yàlla defal dégg ak topp dem ci màggale ci jàmm dellu si ci jàmm waajal gàmmu ci jàmm waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jaaga xam nga yenn saa yi da ngay nekk nitu média xam nit jaaga sama deret la ñu bokk benn maan maam man ak moom way juróom jigéen chéri la may wax fu ma gis day xëcc sama yére génneel dépense bi nga jox ma bi ci des mooy mu nekk yaay joo xamante ni mag la ci man mais dama naan ko yaay moom dama naan ko moom yenn saa ma ne ko man ak yow day sunu ànd dafa jaxasoo jabar nga ci man yaay nga ci man mag nga ci man mais boo gisee man ak moom ñu am relation mooy moom benn benn jo communication la am jaaga benn benn mu yonent bi goro ngi ni yor parti politique di sëy ak doomam kenn ku nekk yaa ngi ci est-ce que xam nga ni jaaga xamul ci politique dara du wax ci politique xamul politique xamul lu xew ci politique xala yonent bi ngeen di waxtaane yéen ñaar à yonent bi amul dara lu ngeen di waxtaane gis nga buñ duumoon ni bay waxtaan ci waali dafa naan xala bàyyi naa ko ak yàlla Mohamed nanu yónni yàgg rek kenn ku ne di nga xam li nga jur parce que wane na ni sëy na ko kër borom këram ndax am yow xam nga ni jaaga day dem ci margo yi di sang néew yi mu xamul ndax am xam nga ni day jël xaalisam di ci jënd ay perkal di jox néew yi mu xamul ndax xam-xam nga ni yenn saa man ak moom ñu ànd dem prison bii di camp pénal mu joxe fa ay teranga daw dellu këram ñibbi lan moo tax yooyu duñ ko vidéo di ko wane coow li ngay dégg li muy rëy rëy rëy est-ce que dégg nga ko ci génn baatu safaan wax ko ci moom parce que nit mooy yar bi ci des mooy kër la goo xamante ni mënuma laa canaliser kan moo ci gën a bëgg yonent bi ay Aïcha day nekk ci kaw dégg sama voix day daw wàcc comme àjjuma tey nii damay génn fa laay dem day daw wàcc ni waxal sama tërandoo Mouhamed doomu coon Seck dañuy waxtaan benn jour mu ne ma man benn journée bu ne leen na yàq sama journée ma ne ko lu yàq sa journée mu ne ma ma dem tudd doom bu góor ma gis ni doom ji tuddee nañ ko kuddul yonent bi nee na sama àdduna sama journée day yàqu Mouhamed Seydina Alioune boo waxee moom kazalika boo waxee danaa la man man man man man sama turandoo ay dund déggoo leen ci taxawaalu déggoo leen ci ñàkk fayda seen yaay la ñu am seen kër lañu am bu dul woon teg tey takk gi li ngay xam ci seen Alioune du bari mais moo amee ca aras damay wax ni coow bu juddoo jigéen ñi yërëmuma leen mais seeni responsabilité jëkkër dafay mel ni dafay des parce que jigéen buñ ko yilifee balaa muy def dara lu war a génn ci internet war na ci tàggu borom këram kër goo xamante ni ma apprécier leen Wally sekk day wax ni xoole ñi muy àndal ku ko bëgga a tuddee doom daf naan la boo ma ko ndaree tuddee tuddee ko yonent bi boo bëggee ma def ci li ma war moo tax man la nit melul na mu waxee na mu jëfee la mel day wax ni bu doon am ba doom ñëpp yonent bi la leen di tuddee am na koo xam ne am na dund na ba caat xalaatul yonent bi kon nit ku nekk ca la mu nekk nanu bàyyi ki yàlla ba yowmal xiyaam mais ay nit yu diiñ lañu kër coon sekk ay nit yu baax lañu nit yu mën a suturaal nit lañu ay nit yu barke alxuraan laa lay wax boo doon wax waxu nit duñ ci détail mën naa la ci indil ay niti niti niti nit yoo xamante ni buñ génnoon wax safaan ñoom ci seen biir maandu nañ ba duñ wax ci kooku yàlla mooy sama seede ak yonent bi boo nee di wax na nangam dañu la bàyyi ko rek di wax na nangam damay fekk nit toog di wax waaye dégg ngeen diw li wax ci internet bi yaa jàgg ne bàyyi leen ko rek mu wax bu bu sonnee dina noppi ñoom ci seen biir duñ tontu seen yaay dañuy ree noppi ajjuma bu jotee dañuy dem ziyaari seen bàmmeelu baay ñi dëkk ci kër gi ñi fa dëkkul ñëpp buñ fa jógee dañuy ñëw sukk ci seen ron tànku yaay xola seen yaay ñaanal leen ñu jug dinaa fa dugg aljuma ba kootu na gis mu yor kurusam mais nit ku xamul rek xamul xam nga li ma ci mën a wax mu gàtt mooy yonent bi la mu waxoon ni la anallahu uh, al uh, al fitnatu naa ima yonent bi nee na fitna ma ngay nelaw la anallahu yàlla rëbb na man ay xasaha ku ko yee am na ay ñëwu nit ñu nga xamante ni boo bëggee sa crédibilité ak sa daraja ak sa martaba yokk fexeel ba bul dugg ci seen communication parce que am na ñoo xam ne tànk leen duñ la laal comme duñ la laal benn baat ci mën a wax mooy fitna ku koy yee yàlla rëbb na la nan avancé ci leneen. parce que Mara Niass dafa juum warul wax loolu te bu waxee loolu bu màggal Touba jotee day jënd ay teraanga yóbbu Touba waa wala déet bu demee Touba day ziyaare sëriñam pourtant teraanga yooyu mu jënd ñàkkul ni way juróom mu ngi fi te joxu ko ko gis nga faar kaso yi ñuy wax borom xel mu gàtt doo ngay wax wax jooju dégg naa wax ji ci ku la mënta génne prison mënu laa yóbbu aljana yonent yàlla yuusuf nekkuloon prison yonent la wala du yonent est-ce que yàlla daf ko faa génne te mu bokk ci nitu aljana yi ndax yonent la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam quatorze jours yoo xam ni tëj nañu ko kaso yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lu yàlla bind moo ci gën waaw lu tax yàlla génnewu ko ci kaso boobu yéefari ñoo ko génne loolu ay waxu fanatisme la rek ak wax yoo xamante ni convaincre ay doomu aadama moo tax am na wax yoo xam ne balaa ngay topp ci détail wax jooju bàyyil ba am argument bu wóor sunu sëriñ si ñu yaakaar seen ay doom sax tëj nañu leen kaso nit day dugg kaso génn am ngëneel yu ëpp yi mu amoon ndax sa yaj'al allahu ba'dal usri yusran yàlla nee na ginnaaw jafe-jafe maay def yomb yomb am na fu yàlla waxee fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab waaye dama jàpp ni rek dafa juum parce que nit ku baax la maanaam nit ku nit nit ku social la nit euh, nit nag dafay juum parce que nañu bàyyi tiimale nit micro rek mu xas kor xam naa dafa juum ci communication bi waaye nit ku am kersa la nit ku baax la may xam naa loolu ci moom Ah. man sa man sa musliman satarahullaahu faa ku suturaal jullit yàlla suturaal la gis nga li nga weere nit ba àdduna yëg ko yàlla nee na balaa àddunaa tukki dinaa la juumloo ba nga def ko ma laaj la dara nit newu fi woon yor ay cas ku ku ku sa dara feeñ mu génne ko ci internet bi xëyul moom ci boppam mu génne yesu boppam te kenn forcé wu ko ci moom laa gëmee waxu yàlla boobu mooy yàlla loo bëgg a toroxalaale jaamam yàlla toroxal la inna laaha naka ku bari kersa la moom yàlla yàlla moo waxal boppam ci alquran fa inna allaha naka yàlla xayyiyun man yàlla ku bari kersa la sittiirun ku bari sutura la yonent bi wax ni masalul muminina fi tawaadudihim wa taraxumihim wa taatufihim masalul jasadi ijastaka minhu idwun tadaa lahu saa'irul aadaai bil xumma wa ci gàttal yonent bi nee na nit ñi dañoo war a mel ni jëmm xoolal bu bëñ di métti bët danaan nelaw parce que bëñ day metti boo gis nga bu nopp di metti bët danaan du ma nelaw gémmiñ ñi du ma lekk bu bopp dee metti soj ñëw bakken changé xetam gémmiñ changé xetam yonent bi nee na noonu jëmm mel na doomu aadama yi mel noonu izastaka minhu idwun saa yu benn cër déclaré feebar te daa lahu saa irul aada yi da ko yëgal mbooleem cër yëpp kon nañuy suturaalante faa nañuy muñalante gis nga looy waaj a teg nit ci àdduna jëlal yére boobu nga solal ko sa bopp xool ba xam jàpp na la wala jàpp la bu la jàpp rek boo ko solal sa nawle